asalaamaaleykum internet Hann TV ñoo ngi fii tey Madiyana tubaa Madiyana seet si saal Sall Serigne Moutada Mbacke ibnu Serigne Cheikh Say mu Serigne Soye bu Mbacke ngir waxtaan ak moom ci lépp lu war a jëm ci màggal gi ñu jëm ci 18 safar ñu fekk fi nag suñu Serigne Saliou Faye mi nga xamante ne nii moo yor kàddu kër gi bala ñoo jublu si waxtaan wi rek ñu bàyyi ko mu nuyoo. jërëjëf. ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal serigne Cheikh muntaha mbacke yàlla na ko yàlla yàggal suñu kanam te mu ànd ak wér waaye nag ëtt bi ñu toog di ëttub serigne Sooy bu mbacke it ñi ngi ñaanal serigne Cheikh Ahmadou mbacke yàlla yàggal ko fi te mu wér lool moo tax tey bu ngeen ñëwee toog jàkkaarloog doomam yu tedd yi nga xamante ne bii ñun dañu leen di bége serigne mutara ngi nii toog serigne mutara Saye ngi nii toog ànd ak rakkam sëñ sa nga xam ne ñun ay taalibe lañu yoo xam ne rek ñoom danoo gimmi rek fekk ñu ci kër gi ñu ànd ak ku tedd ki maa ngi koy wax rek tey ci suba ne leen ñaar fukki at ak juróom-ñett a ngi nii mi ngi jiite kër baayam bi muy Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou loolu yëpp mu teg ko ci ngor teg ko ci yëkk teg ko it nag ci bëgg njaboot waaye nag di ànd ak ay rakkam ak i doomam ak i taalubeem sëriñ bi ku mu wéetal nga yaakaar ne yow la gën a bëgg ci suba rek mi ngi wax ci gàmmu gi fi amoon. ne ne safar wi day gan gu fi ñëw boo dee góor tur wi sëriñ Tuubaa laa koy jox gan gu fi ñëw boo dee jigéen ci safar tur wi soxna maam jaara buso laa koy jox waaye nag bu dul safar du loolu lépp nag tur wi maa ko moom kon xam nga kooku xam na fi muy teg tànkam moo tax tey bu ngeen ñëwee fii jàkkaarloog njabootam gu tedd gi ñuy waxtaan ci liggéey bu réy bii nga xam ne ñoom la seen maam def ba yàlla fayee ko bésam bu bi nga xam ne ñëpp dañuy jóg tey jubal si ñëw ci dëkkam bu tedd bi ñu ngi ñaan yàlla lepp lu fi julit ñaan yalla nako yalla yàlla nangu képp koo xamante ni da nga jog jël sa tank di ñew ci dekk bi yalla nga yegg seeg jàmm ti it di ñaan auto yi ak chauffeur yi ak ñepp ñu def ndank yalla nañu yalla dimbali doole ñu sutura ñu bàyyi leen si mën ta mën mu sala ngeen waxtaan ak mom si safar gogu sax lañuy lañuy dess des rawatina si walum njàngaleem alxuraan ndax ku nek xamne ne yite ji si Serigne bu mbake amone ba tay ji njabot gi diko di ko di di continuer yite yooyu noonu sëñ Saal sëñ Moutala Mbacke ñu ngi lay nuyu bàyyi nga nuyoog internet Hann TV. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatuh mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw bu ñu sant yàlla suñ borom subhaanahu wa taala julli ci bi Muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam yooyu sax suñu taalibe ak suñu njàpp ak suñu yaakaar Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal sëriñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi loolu te wér ko ak njaboot suñu Tuubaa gépp di ñaanal suñu bunt ci suñu Tuubaa du suñu jëriñ serigne si Ahmad Mbacke soxna suñu borom yàggal ko fi loolu te ko ba limu yene yéenee liggéey sëriñ Tuubaa lépp suñu borom mot lako barke sel xarit tan and ko ak moom ñu ngi leen siyaare baax baax baax yeen am TV. wa serigne Moutalla mbake ñu bëggoon xam diu safar gi lan moko wundu rek si si si teunk bu gàtt. waaw euh, euh, di 18 safar euh, laaj nga laaj bu am solo lan moko wundu ndax mbir boko bo nek ci mbir. da ko war a xam bare mbir mi boo si nekk di si yëngu da nga ko war a xam suñu borom subhaanahu wa taala sax dafa xam ne na ngeen ma xam dul maa jàmm kon ñun bala ñoo mënoon jëriñoo nga xam ne bunt ci yonent bi sallallaahu alayhi suñu bunt suñu borom dañ ko war a xam kon màggal gi tamit ku koy def ci da nga war a xam la mooy sababu màggal gi màggal gi moom lan mooy sababu màgg gi mooy sababu tukki gi mooy sababu tukki gi sëñ si dugg dugg yi ndax dañuy wax sëñ sëñ mag bi dafa nekkoon fii ci kanam gi ci Daaru Xudus dugg xal wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fa wax na ne fa la ko njëkk a gisee ah ba mu ko fa fekkee tamit mu waxanteeg moom mu gisanteeg waa ahlul badar sëñ bi gis ñooñu xemee ma bokk si ñooñu mu yonent bi na ko ñii de bokk ci ñoom dafa faat ndax ñoom jëf nañ jëf joo xam si nit mënutu jëf ji jëf jëfati jëf joo xam si ah, dala ko dab ndax ñoo joxe seeni bakkan jox seeni deret jox seen lépp ngir taxawal diine islaam ba ñu ci ñu ñu mën cee jëriñu moo tax lu waaye yi mën a jëfandikoo rek jëfandikoo rek ñoom dañ dañ ci am mu ne ko nag man samay xemmeemteef moom mooy mooy bokk si ñii mu ne ko ah, nit yi yàlla yi la jiitu day ku ne mas naa jaayante ne daf cee waaye buñ la wanee natt yu natt yuñ ci teg ngeen nga bokk si boo teg boo see natt da ngay deltu ginnaaw mu ne ko man day bu fekkente ne garanté nañ ma sama sama roog sama bakkan jom ji ak fidiw moom moom moom moom moom moom attan Euh, loola nag moo waral moo jaayante ak foofu moom ci kër jàkkee Daaru Xudus ji bi fi duggee xalwa ci la si mooy sawu baatin bi mooy sabab bi nga xam ne mooy sababu baatin bi nga xam ne sababu saahir bi moom mooy mooy tuuma yi ñu ko tegoon euh, euh, wane na ko dafa day yar ay ngànnaay bëgg jaar fi ñi ko fa jiitu jaarale comme ay Maba Jaxu ak ñu mel ne Cheikh Omar Fouti teg jihaat mooy tuuma yooyu ñu bari yooyu ñu ko tegoon rek mooy sababu saahir waaye sababu baatin bi nag moom mooy engagement bu mu engagé ak digganteem ak boroom jaar ci yonent sallallahu alayhi wa sallam am xemmemteef bu mu bu mu bëgg ñu teg ko ci natt yi te natt yooyu mu ñu ko teg li fi génnu dëkk bi ci la génnee nag mooy mooy sa sa boobu màggal gi. ba mu ko defee nag ca la ko teg natt yi commencé ñëw mu daal koy jëlee jël génne ko réew mi noonu mu ko waxee rek xarat ci yow ma sabti saamina xasar li xidmatal muxtaari fii saxari safar. jëm dëkk boobu sax am na ñuy wax ne bokk na si kii sabab gi li ko indi tamit nijaayam suñ bu yàlla wax na ko si mu pour mu pour mu pour mu génn àdduna daal si nu ko mën a waxee si ay teggin pour natt yi mën a ñëw loolu lan nga ñu si leeral. waaw loolu laaj bu am solo la ndax euh, loolu la xiste bu gudd la dama ko tëbu noonu sax waaye ndax sëriñ bu soobee day nijaayam te sëriñ bi da ko bëggoon lool te muy yàlla. sëriñ bu soobee dafa am cëru suñu borom dafa wax ne sax dafa moom dafa ñaanal boromam ba la ko da ko ñaanal ba yaa borom da ko defoon kum jur rek mu nekk wàllu sëriñ bi tamit bëggoon ko lool. te yàlla da ko rusoon dañoo wax ne suñu bés ko suñu borom rusoon la ñoo mu xam ne nag natt yi nag dañ ko xamal dañ ko xamal suñu tubaab ne ko natt yi nag li fekk sa nijaay ngi dund suñu mbusoo bi natt yi dund ko teg ñu wàcc moo tax ba mu génnee ci xalwat yi bi ko waxee la diir bu gàtt la fi jóge suñu mbusoo bi fay jóge natt yi suñu borom dal ko ko teg ñu moom daal di sóobu ci tukki tukki bii waaye wax na ne bu doon bu suñu mbusoo bi doon doon dund kon tukki bii ak yooyu suñu borom mën na ko rus ba loolu du am moo naan suñ mbusoo ba loolu daam moo waral nag ginnaaw bi suñ mbusoo bi nelawee nag ci la ci la ci la ci la ci la ci lañ ko euh, fii jëlee fii mu noonu ma ko bindee nag mu génne fi bis bu gaaw ci weeru safar juróom juróom-ñetti fan ci weeru safar muy tukkum bu tukkum tukkum bu yàgg boobu mu mu mu newoon moo loolu mu bindoon rek loolu ma ko xarit ci yow ma sabti saamina xasar li xirmatal moxtaar fii saxari safar mu ne muy bisu samedi la génn liggéey yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daay tukki mu war a tukkim boobu nag bi mu ñibbisee nag ca la euh, wax ne ca la euh, maa ngi euh, diglu rek bëkk dem rek sëñ mulaay bu sëñ mu ko def mu ko mu ne moom la ko sëñ Tuubaa njëkk a wax na ko fekk magam joo xam dafay indi woon ab gàtt mu ne mu xool mu ne ko sëñ bi xool ma gàtt bi ñu fi indi mu ne ko mu xool gàtt bi mu indi ko mu ne ko lii aw bëy la sëñ bi ne ko yóbbu ko nga so ñu so ñu ñu ñu wàccaxunul ma ko am xar ne mu yóbbu ko ba ci séeréer gi am séeréer gu nekkoon fa mu yóbbu ko ñu soppi ko am xar ba mu dikkee nag mu mu ne ko dafa ma ko ñett ñaari cër cër bu ne mu ne ko am joxal ma ko diw jël ma ko mu ne ko naa la jox luñ ko booleel bi nee ba jëm ñetti fan ci weeru bi mu jox ko ko luñ ko booleel mu séddloo ko wax na ne ne ñaari cër yi jaax ñi ko doon togg waajuru Sëñ Abdu Xaadir la ak waajuru Sëñ Fallu la la ko sëñ bi jox la woon ñu togg ko te ñooñu tamit xam gën a gën a gën gën a ñoom ñëpp si sëtt suñ sëñ sëñ sëñ bi sóobi leen bi mu ko jox bi mu ko bi mu ko bi mu ko joxee tamit Ah, mu ne ko bis bii nag neen ko def muy seen bis am na bis yu ko jiitu woon lu mel ne ay tabaski ki tamxarit ak bis yu ngëneel yoo xam ne fi la ko fekk bis yooyu baax na lool waaye man de lu ma am bis bii ci ci leen ko sama sama borom defaree yéen tamit lu ngeen am bis bii moo leen ko may ndax ñun ñun lu ñu am ci yàlla am ko ci yonante bi am ko sëriñ am ko sëriñ Tuubaa tax ñu am ko sëriñ Tuubaa tax ñu xam suñu borom subhaanahu wa dëgg-dëgg xam ba mën koo jaamu Sëñ Tuubaa tax ñu gëm yonent bi salaatu alayhi wa salaam ba mën koo topp mën koo roy kon Sëñ Tuubaa moo jéggi dagg suñu suñu suñu jët ci ruu moo ko daj ci sawara xam la ko suñ la ko suñ Musaa rek bu doon kon sa dem gi kon waraf dem dem nasaraanu te kon billaahi kon ñëpp dem dem niiraanu ah, kon kon ñu wéranti ne ñun bu doon ak Sëñ Tuubaa du xam yàlla du ñu xam yonent bi. kon ñëpp ay la ñu nekk kon moo tax ñun lu ñu am rek ci àdduna sëñ Tuubaa ñu ko may te sëñ Tuubaa ne ñu am ci bis bis bee tax ñu am ñu am ñu am ko mooy nag koo xam ne nag bis bii sama mbég sa mbég la nag ma sant la suñu borom képp koo xam ne bis bii sama mbég loolu laay wax barki dem rek bi muy interview mel leen gàmmu yàllaa gàmmu yonent sallallahu alayhi wa ko moom waaye màggal yàllaa ko moom ndax sëñ Tuubaa musul moomale boppam dara màggal dafa wax ne na ma sant la yàlla sant yàlla la wax waxu ngeen ma sant ndax sant gi ma war a sant sama borom rek lott naa si nanga nga ma sant la yàlla aw turam da ko soppi tuddi Abdullahi jaamu bi yàlla tuddi boppam ay turi doomam ay Abdul Ahad ngay dégg ay Abdul Xaadir Mouhamadul Moustapha Mouhamadul Basir lépp dafay dellu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu dellu suñu borom ay këram Daaru Rahman kër gii kër Sëriñ Tuubaa kër Sëriñ Tuubaa la Daaru Rahman la tur woon kër gi ñu mu gënoon a fonk ñi ay jaamukati yàlla di ay sirif wala ñu nekk ay ay nit yi nit yàlla ci kër gi la lan dalal daaru rahman la ko tuddee kër gi ci kanam daaru xurus la ko tuddee woon këru yàlla daaru minam këru yàlla daaral maxti këru yàlla daarul man naan yoonu wi ñu nekk tamit mu yoonu murit muridullah la tudd ku nam ma jëm ci yàlla moo naa wax yoonu ahmadiya nga xam ne day delluwaat ci moom ñeneen ñi dul moom tariix yi ko yëpp seen seen seen seen turu yoon dañ ko tudd dafa delluwaat seen jëmm juru mooy lim turu tariix yooyu waaye koo si tudd turam rek tariix boobu rek tariix diw la ñuy wax day delluwaat ci borom tariix ba waaye moom mënut woon wuroo tarix sëñ Touba déedéet muridullah kon nag ma jëm ci yàlla Touba àjjana la ko tuddee Abdullahi Daaru Rahman Daaru Minan Daaru Xafoor yëpp da koy dolaat ci yàlla moo tax damay dégg sax yan ñenn ñi nga xam ne ñi bokkuñu école yi ñu jàng ci lislaam xam ne sama mbokk euh, euh, euh, cheikh yeeg yooyu si salafiste yeeg yooyu ñuy gisee ne ne ne ñun ahlu sunna ñun ahlu ahlu tasawuf dañuy dañuy dañuy xaw a am ay bokkaale waaye ñoo am njuumte leen loolu dañ cee dañ cee jàngatut tur yi sëñ Tuubaa lépp lu mu def ba ci tur nit yi mu tuddee tur dëkk yeeg tur yoon weeg yëpp suñu borom la ko doole wa sallallahu alayhi wa sallam kon dama yàpp nag bu dee pas-pas ak gëm yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom ahlu tasawuf ñu rawatina murid yi ñoo ñoo ñoo dañoo gën a def ko yàlla bind moo tax mu moomul wut dara rey boppam màggal gi nag noonu la dana moom waxu ne na ngeen ma màggal waxu ne ñëw leen neen ma sant la suñu borom subhanahu wa taala ndax li ma yàlla defal defal leen ko lott naa ci sant ko na ngeen ma dimbali ci sant la ma si képp koo xam ne mbég sa mbég la na ngeen ma sant la suñu borom subhanahu wa taala ci bis bi mu mel ni sëñ Touba 18 safar gi la santaane waaye gis nañ jullit yu bëri rawatina murit yi bu weer wi teroo rek lañ koy tàmbalee di magal jëm 18 safar ban jàngat nga ñu mën defal si loolu waaw loolu moom xeruk taalibe la ak seen bëgg sëñ Touba ndax Touba def bu geeru masaan gàmm masaan teru day tàggoog sogom waaye ku ne xam na ne laylatu mawludi nabi la wax guddug juddug yonte sallallahu alayhi gi yow Sëñ Tuubaa nag li mu mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la taalibe bi mel ci moom ni mu bëggee yonent bi rek noonu la ko taalibe bi bëggee moo tax ñoom tamit bu weeru safar teroo taalibe bi yëpp dootuñu ànd seen sago ñëpp di bernde di ko tartoo bis bi waaye nag bis bi moom mooy 18 safar mooy mooy bi bis bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne mooy suñu bis moom moom moom moom la suñu santaane ñu koy màggal di ko ci sant la suñu borom di koy wàcc ay ay wàcc ay kaamil Alxuraan di ci jàng ay xasida di ci def ay bernde waaw leneen lu ci def nag bëgg gu nit ñi bëgg sëñ Tuubaa ak xër gu ñu xër ci moom moo tax ñu koy gàttandoo kii waaye waaye bis bii moom mooy mooy mooy bis mag bi. bokkoon na si ndénkaane yi Sëñ Tuubaa dénkaane woon muy jàng alxuraan te képp ko wax alxuraan wax kër Sëñ Suhaybu bu Mbàkke ban njàngat lan nga ñu mën a wax si diggante Sëñ Suhaybu bu ak téere bu sell boobu. ah lu am solo nga laaj. téere alxuraan ak Sëñ Suhaybu moom sëñ son bi si moom mooy alxuraan sëriñ tubaa mooy alxuraan ndax sëñ tubaa dane sëñ tubaa suñu borom dool loon na ma alxuraan moom loo na ma alxuraan daane daa daan ne bi xidmatal kitaabi wala xadis yasbutu laa bi saxabit mawruus nee na ci jàng alxuraan alxuraan ak xadis ci leen may liggéeyalee ci alxuraan xadis ci leen may doonoo waaye kenn du ma doonoo ci urus kenn du ma ci kër gu rafet kenn du ma doonoo ci alal moo tax dëgg-dëgg doon suñ Tuubaa suñu sooy boo ko doon ndax ma ko doon si alxuraan waaw rek dafa yaatu doom si suñ njabootam gépp rek de kenn kon am ngëb cër waaye rek la moom moom di moom lii mu si cër suñu sooy bu ndax suñu sooy bu suñ Tuubaa daf ko wax ne dama wax ne da ko mos a woolu moo ko sëñ xam surtout jaata ni mu indi ko yónnee moom ba ngoon mu sottee ko ci moom sëñ Moussa Sall nettali na ko ba tey ba mu yëndoog moom ba ngoon defal ko ay teraanga tàngal la ko ataaya defal ko ay bernde yu bare bare bam pare munu ko xam nga li lan las jublu sëriñ sut nako ko beug gis nako ko xam munu ko bëgg mu fonko tranga beug mu am mu xam tranga ta fonko alquran beug mu xam tranga ta fonko alquran bam ci duggé timit lolé suñu son daf koy tém njabootu suñ tubaa gep nak lu commencé sëñ munu mustafa ba ci sëñ Murtada li commencé soxna Fadja ba ci soxna May ak Cheikh si yëpp ak yoon wep ñep ma sa nangul ko sëriñ son sëñ Jean yi tamit ginnaaw bi si Mourou Moussa jógee 1945 ci la ñëw toog daana day yoonu murit seen rançon bu njëkk bi sëñ Tuubaa moo leen boppam mooy ñoom si am sëtu Jaxate ak sëñ Abdourahmane ñoo naa ñaan ñaan formé leen boppam ba mu ba jot moytu ko mu tànn ku mel ne seen seen seen Abdourahmane Lo sëñ Bay Jaxate jël leen doomu yoon wi ak doomu mag ñi ñu formé leen ñu defal ñu tabax jugu bu bees jugu woo wax xam si ñoo war a yor yoonu murit ëllëg jiw woowee bi ñu fi jigéen ba pare suñu sooy bi daan a ah, ñii si si si si suñu tànn nañ ñi defar jiw woowu jiw wi si toppaat nag maa ko sosoo taxawal daara ji muy kër gii mu nekk ci kër gi nekk nii sosaat kër gii xam ne kër baayam la woon sëñ Tuubaa sanc ko tudde ko Daaru Rahmaan daal leefi sëñ Fallu ak fii ñu géey fii ñooy génnoon ne ci biti bi ngeen jëkko jox fii fii fi nekkoon fii la dal lee sëñ Mënu Musaa Arxaan fii la dal lee sëñ Fallu Arxaan ron googu nekk ci kanam fi la gërëmee borom Daaru Muxti sëñ Maxtaar Bintu Lo fi la jébbaloo ci moom mu sos fi daara yoonu murid lu commencé sëñ Mënu Moustapha ak mag ñi topp sëñ Tuubaa yëpp ku fi soo doom jàngewut sëb sët jànge na fi ku fi jàngewut alxuraan tamit a jàng alxuraan ba nga jànge alxuraan pare gàddu nga xam-xam ñëw ci dimbi gi toog sëñ Ibi bi xam-xam nga fi xam-xam loo fa xam ci dée ngi jëf ko jàngee sëñ Ibi bi nekkoon doo fi ba ba mënatut sëñ jiyén daal di nekk fi ak ñoom sëñ Elaaji yém sëñ Ibi du fi la xam-xam ci dimbi gi daara yooyu nag ña fa jóge woon ñoo sa tas dëkk bi sa sos yeneen daara sa rançon bii ngi ci dëkk bi bépp ba ci ñi fi jëti imaam bi ñi jëti ci jumaa yi dëkk bi ñi sos daara alxuraan ñi yor kàddu dëkk bi ko fi gis ci kër gi lañ ko formé kon jiw yor yor murit fi mu toll sa rançon mujj bi yëpp fii leen leen defaree fii jiw woo fii la meññee daf daan wax naan ci mujj gi bi mu leen formé ba pare dafa wax neen dañ leen xam ngeen xam xam ngeen dugub ñu ne ko waaw ok mu la dugub de boo ko jëlee ji ko mu sax ne ko gub benn pepp nga jiwoon mu ne ko gub gub woowu nag moo jur junni junni junni junni pepp gub woowu boo ko daggee wal génne ko ba ginnaaw siw jiwu teg ko nee gub woo nu def ñu na ko ñu ne ko xamuñu ko mu ne gub woo ku dee ku dem ku dee mu dee mu dee ku dee mu dee ba ba mu saxee ba mu gënee gub rek ca la si noppi xam nga gub moom boo ko xasee dagg gub moom woowu nag gi lay nekk. dee na du dundati jiw ba nag moo war a moo moo war meññ yeneen yeneen yeneen yeneen kii boobu seen rançon bii mu doon defar leneen la bëgg wax ne ne moom li war a def defar na ko pare ñoom nag nan tas sas yeneen daara <laughs> ah moo tax yoon wi moom mooy defar mooy léew loolu nag noonu la mel ne alxuraan doomu suñu tubaab yëpp nangal ko ko féetlu féetlu ko wala mu def ko ab toolam ni mu def ko ab toolam ndax suñu tubaab dafa laa wax naan bustaani kitaabullaahi sama tool mooy alxuraan suñu soxla nag def ko ab tool mos a bëgg dara monsieur lu lu loolu daf ko yitteem daana wax naan maa ngi dégg daana fii nii fii ngi si ginnaaw baafal yi fii la amul am néegu ban nekkoon fi daana fi toog kër gi raf la lool ñu xiif léeg-léeg bu nu añee duñ reer suñu jeex neen daan def gobar jaasi nga xam ne bu mu takku dañuy bay añ bi ba ginnaaw takkusaan ñu dul ko yàq nga xam ne bu mu añ beeg benn lay nekk mu toog bis boo xam ne sàq ma dara nekk fi dugub nekk fi ceeb nekk mu toog daa jaaxle daa toog da gëm bi mu ne gëm mel na mel na Sëñ ko fekk si na ko sooy bu mu muñal te sax si li ma digal te eh, diir bu gàtt dinaa ñëw te bu moo ñëwee daa tuuti jeex nee na toog na fa lu yàgg diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg image bunt bi nangu mu nekkoo fa sa kaat ngir gis suñ tubaab bis mu koy xool bi mu koy xool ba ba mu jàll nee na ca fan yooyu am na ay xaritam yu ñëw ñoo ko naan ko sa fii de day mel ne day xeeñ sikk mu reen a cel xam naa sikk ji suñ tubaab xeeñu woon la kon moo xam ne kon jëneeru ko kon du ko gis te bis boobee mu noppee gis bi ba nu fi jógee gënaatut foofu te mujj na sàq mi ku soxla dëkk bi ku ñu bind ordonnance ci kër gi fi nga ñëw ñu jox la ko doo fay dara ku néew doole dañuy takk sareet bi day dibbal day yóbbu da lay jul di def dara xéwlu fu ñu lay xéwlu di koy ci dëkk bi di ko fekk ci kër gi te loolu lépp ci barke Sëriñ Tuubaa ak barke Alxuraan moo ko moo ko may nga moo tax mu ab toolam moom musul am bëgg dara musul topp dara lu dul formé yoo doomu yoon wi formé nit ñi ci xam-xam ak Alxuraan moo tax ñun moom moo tax dëgg ci loolu tamit ci la njabootam gépp nekk sëriñ si Ahmadou Mbacké Sow mii ci la ma sa nekk ba mu sos daar si bàyyi mi ngi dund ñun ñi daaram lan motu lan alxuraan ndax ba ñuy amee juróom-ñaari at ndax ñun ku ne xam ne sëñ Cheikh musul bëgg dara musul am dara tele bi sëñ daal la woon dong dongub tarbiya la ñun ñi doomi ci daara ji lañ juddoo toobeel la juddoo ci kër ga suñu tur ak suñu lépp suñu ñëpp sëñ daal sëñ daal ban ba ma tey juróom-ñaari at la ñu indi kër suñu son bu jàng si bi ginnaaw suñu bi te la ñuy waaye bi ginnaaw suñu soxla bi ñu njàngatu daara suñu seex lan moo tudd am njàng fekkoon suñu seex sos daaraam daara alxuraan teg fa ah. ñu ginnaaw bi suñu soxla mu jël daara yóbbu yëpp ci nekk seen léeb la soxla bi ci la nekk sëñ bi boo demee boo demee Ngaabu ma nga ko sos daara alxuraan sëñ Fallou nga ko sos daara mag ca Ndakaaru si yem hmm? satu mu suñu soxla bu moom noonu soxna maama dem suñu soxla bu noonu doomu suñu soxla yëpp ci la nekk bu fi suñu soxla bi jenn daara ji la fi bàyyoon ak daara ñànk ji te léegi boo fekkee fii am na lu ma ëpp lu fi nekk ci tiidaar ëpp na téeméer daara te lépp njabootam gee ko sos moo tax ñoom te fi seen bàyyi bàyyoon sof nañ fa continuer yàqu ju ko macha tëj waxtaan wi ñu bëggoon nga dénk bu fekkee ay kàddu yooyu dénk ñi nga xamante ne nii julli yi màggal si lan lay doon. li mu leen dénk daal moo di kàddu ndénkaane ñi xam ne ñooy màggal si lan rek la moom moom moom leer nañ la mooy texte discours bi si mun bi bindoon mooy ayoon nañu ko respecté ñoo ngi sukk suñu buturam di ko yaan di ko ñaan waan doomi réew mépp nit ñi fi ñëw ñëpp moo xam jullit la moo xam ko dul jullit ndax ku ko manqué ku ko na ku ko nanguwut tamit boo woon yor ko suba da nga respecté seen loi boo ne woon biir Dakar ne bëgg dugg assemblée bu ne la yëre bi du fa dugg da nga ko respecté fa bu la cigarette bi loo ko doo ko fa taal doo ko fa taal kon nag li Sëñ bind na lii bëgguma ko ci dëkk bii ñu def ko ci internet bi tasaare ko ci daayira yëpp jox ko kër doomu suñu Tuubaa yëpp ñoo ngi ñaan jullit yëpp ñu maasa respecté ko ba ñëw Tuubaa ku jógee Tuubaa dem sa kër nag soo mënee continuer li la aay aay nga def ko ndax lu baax la baax na soo ko muntu nag nga bàyyi ba àgg sa kër doon ko faa def mbokk yi mu nekkoon Serigne Murtada Mbacke mu Serigne Mouhamadou Mbacke Sohaybu bu mu fi toogal jotaay suñu Sohaybu bu tey ñu fekkoon ko tey fii si Madiana tubaa Madiana ngir waxtaan ak moom ci lépp lu jëm ci màggal gi dégg ngeen tontu yu am solo yu mu fi indi ñu ngi lay ñaanal Mbacke nga yàgg fi lool yàgg fi lool gën ñoo def ay ñaan bu baax a baax a baax tamit.